jërë ngeen jëf mbokki jullit yi jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom doole jàmm tey nag ma dalal kilifa goo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di sëñ Omar Mbacke buñ ko waxee nag ah, mu bokk ci ñee nga xamante ne ñuy waa Daaru Salaam muy waa kër Cheikh Maam Anta borom Daaru Salaam borom dërëm ak ngërëm fa see na ñëw seet si waxtaan ak moom damay wax ni réew mi am na fu muy toll faaw nga dem seeti kilifa yi ñu mën a teg ndaw ñu ci yoon sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre. Euh, jërëjëf bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yuhdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala mudilla lahu mbokki réew mi mbokk bitim réew ñu ngi nuyu yéen ñëpp ko ne sutur ak sa sant jiite ci néew bi Sëriñ ko ba yéene ji mu am si liggéey tool lislaam yi suñu borom defee lu kawe ñootam di si teg xalifa maam Cheikh Anta di si teg mboolem njabootu Daaru Salaam rek ak mboolem futaar bi nekk rek ñu ngi nuyu ñëpp ku ne sutur ak si sant jërëjëf euh, sëñ bi nuyoo bi am na solo fi may njëkkee fan yi passé am aw jéey boo xam ne amoon na ci réew mi mhm. euh, jéey ba euh, ban jàngat nga ci am waaw jërëjëf si rajo am solo boobu moom xanaa di ko metti lu comme ñëpp rek mhm. li may fàddu wax rek dafa nekk loo lu mëntoon ñàkk muy ndogal loo xam ne suñu borom la. ndax boo déggee Sénégal ñu sëpp dañuy wax ne problème mu tëli. waaye ku dem fa soog bu amoon da nga xam ne. foofu tëli ba dem ba normal na ñëw bi normal na. baax na. xanaa kay day lu mu doon am rek mu sabab ba cipp na bu toj. ñaara ñi nga xam ne ñu si ñàkk seen bakkan suñu borom xaar na àjjana te yërëm leen. ñi nga xam ne ñoo si gaañu beneen hôpital suñu borom yëkkati yëkkati Euh, état bi it maa ngi koy dégg mu wax mu jël foofu ay mesures waaye na si gën a bàyyi xel ne maa ngi dégg ñu wax ne oto yu mag yi ñenn si ñoom duñ daw guddi. Mm-hmm. loolu nag bala mu see kii jël dara naka gën a saytu bu baax a baax. Mm-hmm. ndax ki nga xam ne lu mat fanweeri at a guddi la yor. Mm-hmm. kooku boo nee ko a daw guddi rek te nga xam ne si a yaakaar ak si njabootam. yaakaar si fay location wala yu muy demee noonu nga ne ko doo daw guddi loolu dana xaw a kiimaani si moom mhm. kon ala kulli xaal mu mu bàyyi si xel bu baax a baax mhm. waaw loolu rek laa am lu ñu si lu ñuy gis si mhm. foofu ay jinne jinne la ci wàllu baatin lan ngeen ci mën a wax waaw jinne moom mën na lu raw loolu euh, jinne moom mën na lu raw loolu ndax li far di wax rek Sénégal nekk na réew mu bëri ay jinne lool moom it ndax réew mi la ëpp ay tabax yu àggul ëpp la ay monument mu mhm. la ëpp jinne mhm. déggee sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum yal nañ ko yàlla fayal mhm. yéen waxtaan léeg-léeg nga toog nga dégg ay waxtaanam mu ne jinne sàngam day tourné sama ndekki li da ngay dégg mbokk yi ree rek jàll te loolu ak ñumte la ñumte gi li ñu woon def mooy laaj ko nuñ mën a def ba saafara ko waxoon ne it ne nañ sang réew mi ci xol bu laab way laa rek way laa dana sang boppam te ku ne gis na ko muy deret ju bëri ji nga xam ne réew mi moom réew mu bëri jinne la hmm. bëri na luy sab luy am boo xoolee ba si biir jinne ngi si biir kon rek lañ si am lu ñu mën a moom it xam naa dinaa ñëwaat ñu gën a leeral ci wàllu jinne bi hmm. ñu jëm làmb mu di tey ak suba donte baaxuwa di wax ci làmb hmm. làmb ji bëri violence ba Sénégalais yi bëri tiit ak ni fi réew mi toll est-ce que c'est normal ay làmb di am ak fi jamono toll ci wàllu violence waaw comme li nga wax tàmbalee rek ñun moom ñaari comme si làmb suñu waaye comme si réew mi lañ bokkit mhm. te xubbal watan min al iman mhm. ñaanal ñuy bëri jàmm mhm. ñi fa ñeneen dem fekk ji ñaanal leen jàmm loolu rek la moom it lañ am si luñ si wax. baax euh, ma ñëw ci wàllu xam-xam ñu njëkkee ci wàllu seet euh, ci yenn anam lañuy seetale nit. waaw jërëjëf seet it bëri na lool ay façon am na yoo xam ne dafa xaram nga xam ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo ko xaramal. yu ne pitaaw ak yu ne moom. am na yoo xam ne yu dëgg am yu dagan yoo xam ne suñ magi réew mi si lañ ko daan def hmm. lu mel ne Abu Mahshar al ak yi ne ñoom nga xam ne nit li may faral di wax rek nit moom warul dem warul dugg si dara sans ñu seetal ko hmm. ndax seet euh, darool lil xayaat la mënul lu mënul ci dund doomu aadama la hmm. ndax bëri na koo xam ne mi ngi gàllankooru tëju mënul am dara waaye laa muy tëdd di tawat lu bëri bëri ñaari boo ko seetalee rek baax ko ay saraxam bu ko defee balaa ñetti fan dina am ak soppeeku nga xam ne seet moom day nekk lu mënu ñàkk ci doomu aadama ba tey te mooy téer ba mën a juñi léegi muy abo maxchar dara jàngal ba jàngale nit ki yan couleur yére la war a sol nga xam ne kon nit moom warul dem sa eh, sa euh, mu am ko ku mën a seet koo xam ne da day fara diisoo moom lu bari bëri ci ay mbiram ndax ma gàllankoor yi ak ak dund gi ñoo ànd waaw mu ñëw ci wàllu jinne wàllu jinne bëgg naa ngeen ñu ci ay leeral parce que jamono ji li ma waxoon sànq. Mhm. lu yëngu ñu ni jinne te daanaka ñu bari dañoo desee xam lan mooy jinne. waaw jërëjëf waaw jinne day moom day nekk lu fi yàgg lool ba nga xam ne suñu borom bi dina àddina ñoom ñoo fi ñoo fi nekk. Mhm. waaye nekku fi leen lu dul tur deret ak rayante. Mhm. suñu borom malaaka yi wax dem suñu borom ne ko xamal ne ko kat ñii nga di àddina kat ña nga fa di yàq di turante deret ba a malaaka yi dem ngeen jëli leen fa malaaka yi ba ñëwee di jëfante jinne yi sëriñ daw ñii dugg si dex yi ñii dugg ci géej yi ñii dugg si garab yi ku ne ak fa nga jaar waaye ci kaw loolu ñu fa ñu bàyyi fa seen benn doom joo xam ne xale la jinne jigéen la malaaka yi far ko dem war ko suñu borom suñu borom ne yar leen ko ngeen jàngal ko sàbbal ñu yar ko jàngal ko sàbbal ba mu ba mu ba toll fi nga xam ne bu fa góor soxlaa bu fa góor tolloo day soxla day jigéen. Mm-hmm. wala jigéen toll fa di soxla góor. malaaka jinni ji day jékki-jékki rek bàyyi noonu awraam ne malaaka bu siy faatu moom it malaaka wax ko suñu borom suñu borom ne bu ko defetee rek nañ jël jum ci sawara dugg ko ci kanamam. Mm-hmm. mu toog ab diir defaat ko li jël jum ci sawara dugg ci payam mu jëlee si ëmb. ba mu si jël ëmb dem mu am doom doom ñu ñuy tuddi ko asaasil am na surnom muy Iblis nga xam ne moom foofu la soqeekoo moom it nekkul ku jege suñu borom subhaanahu wa taala ndax lu ëpp lu suñu borom daan daan daan daan def def def daan diggante ak moom waaye ak rëy moo war a tey lii ko dal ko. muy muy jinne yi. nga xam ne ci lu ëpp li gàllankoor doomu aadama rek ñooma moo xam nit ki dañ koy liggéey boole ko ak moom mu tee am amam way laaj ñu liggéey ko ba du mën a am ci dara am na ñoo xam ne surtout si mbokki bitim réew ñu ëpp ci yu mel noonu foo gis rek ñaar yi lu si ëpp day nekk def def boo xam ne dañ ko mhm. da ngay da ngay fa nooy gën a jëm mag rek tawat da lay gën a sonal da ngay fajo fajo ba sonn mhm. waaye pour nga am résultat day jafe mhm. yooyu yëpp di wàllum jinne euh, moo tax li may fàtte wax rek ku ne war ngaa a mën a mën a góorgóorlu ci sa bopp surtout ci wàllum kaaraange nga xam ne suñu bopp dana la musal ci yu mel noonu euh, ma ñëw ci question bi nag su ma la ko ah maam Cheikh Anta sa maam. <laughs> te ku ne xam na ni. <laughs> moo nekkoon milliardaire Serigne Touba. <laughs> ku ne xam na ni eh, su doon élection dama naan moo yoroon wàllu budget. Eh, kii di Serigne Touba. wàllu ubbeeku. laa bëgg nga am looñ ci baaxee. waaw jërëjëf mu ubbeeku day nekk solo ci dundu doomu aadama. ndax ku mel ne mi ne fii te ubbeeku moom dana xaw a kiimaane. ndax boo xool salaire Sénégal yi daanaka ñuy ëpp li ñu fay ko sax 500000 wala mu dul 500000. nga xam ne tey dund gi metti na nit ki pour mu am kër moom dana jafe. ñaari ubbeeku moo la mën a dimbali. ba suñ ba mu dimbali kàtt na la ba lépp li nga bëgg nga am ko. ubbee ubbeeku nag yëmut ak lenn. waaw nit ki comme li ma wax si tàmbalikaay bi rek boo ko seetalee ba xam ne kii ko war a am la incha allah am nga ñaan yoo koy defal moom. bala ñetti weer lépp lu nekkoon ci ma ci jafe-jafe. donte dafa nekkoon ko ko daif koo xam ne amul dara. Eh, balaa ñetti weer incha allah dana gis soppeeku. bu nekkutoon daa ñàkk ba pour mu am million day jafe dana gis millions yi yomb loolu macha allah mm-hmm. waaw moom ubbeeku moom day lu am solo loolu moom it ci doomu aadama. Mm-hmm. Uh, jërëjëf sëñ bi. Uh, am na taalibe toog di la xaar. Mm-hmm. waaye li may wax rek. réew moom day toll foo xam ne faaw ñëw seet si ñu mel ni yow. dëgg la am luñ baaxee. Uh, tey lan ngay tàggatoo ak ñaanal taalibe yi. waaw jërëjëf xanaa ñaanal ñëpp jàmm rek. ñaan si réew mi jàmm. ak li wër réew mi yëpp rek. ak fu Sénégal jërë ngeen jëf mbokk yi moo nekkoon sunu invité tey di sëñ Omar Mbacke moom Cheikh Anta Mbacke ah numéro téléphone bi mu ngi noon di daw ci rajo yi ku ko soxla rek boo ko woowee euh, dina la teg ci yoon ba nga ñëw fii jërë ngeen jëf ñu ngi leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullah